wa naudu bika min sharri ma fi hasalin wa sharri ma baadu wa naudu bika min adabin fi lqabri wa adabin fi naar mbokk yi Sud seen rajo ci waxtaani fajar yi mi leen di defal fajar jot waxtu wi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala ji ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi almisbaax ñaanal ko tawfiix suturaak teraanga ak poche def dara noo ngi jéggulu soxna yeeg sëriñ si di del siwaat ci sunu tomb bi ñu tàmbali woon démb muy àqi ñaari way dencante bëri na bu ñu koy santaan bu ñu koy sant ci sunu temi conférence yi waaw bëri na buñ ñu koy sant waaye li tax ñu koy jàng te sharia andi ko mooy ku góor xam li li koy xaar ci jabaram ku jigéen xam li koy xaar ci jëkkëram sëy bi it xam li koy xaar ci ñaar ñi ko bokk waaw waajur yi xam ko bàyyi xale yi doxal ko yooyu mbokk yi kenn ku nekk min az-zawjayni daa war a taxaw bi waajibihi te xam ne àq yi ngay def mooy tax nga jot ci àq yi nga yi nga moom xam naa bu ñu yàlla baaxee bañ àgg ci suuratul asri mu bokk ci saar yi nga xam ne dañoo fees dell sunu borom dafa ci wa tawaasoo bil xaq lool na wa tawaasaw bi sabr yàlla nañ ci àgg ak jàmm ci tafsir ma nga ca kanam a kanam waaw ndax ñoo ngi suratul fatih suñu diggante moom xaw naa sori yàlla yàlla dundal maa ngi yéen ban àgg ca te weesu ko su ko defee waajibaat yooyu responsabilité boobu kenn ku nekk ci ñoom ñaari way dencante yi buñ ko matalee sëkk dañ am jaww joo xam ne jaww ju neex lay doon tabarkàlla waaw jaww ju neex lay doon gis nga sëy bu ñaari déggoo di def jaww ju neexee noonu kenn mësu koo gis suñu Cheikh nee na rawatina bu dee ñaari jeeg yu jiboo <laughs> tabarkàlla sunu sunu sunu góor ga radiyallahu taala cëy waaw cëy allahu akbar waaw eh, wa bi zalika tatimu saada azawjiya bonheur bi nga xam ne mooy am ci sëy ñaar ñu ñoo ko def moo tax dégg naa japon bala ngaa takk jabar dangay ngay jàngi nu ñuy yore jabar ñu door laa may jabar waaw dañ lay wax lan mooy nit d'abord nit kooku ki ci doon jigéen lan la ku jigéen ñu wax ko lan lan mooy nit d'abord moom tam doo ko wax na ko kan mooy jëkkër waaw bu kii xamee luy jabar kii xam luy jëkkër bu ñu boolee ñoom ñaar ci néegu sëy néeg ba mën naa am tabarkalla yu baree bari yu ca yu ca defaru mbokk yi ak yooyu soxna Sala Dieng madame mbay xam naa na ci noté li la ci concerné te noteel monsieur mbay li ko ci concerné bu fekkee bokk leen ñaar yéen ñaar toog di note waaw ndeysaan ndax sama militaire bee ci Thiès day <laughs> seet daf maa gis keroog rek xam ndeysaan sama militaire bi ci Thiès allahu akbar militaire bi nee na maa ngi ak ñaari soxna ak i doom yu mag mu ne waaw mu ne ma waaye le 22 juillet 99 ba nga ñëwee rajo léegi. ma ne ko ah mu ne ma fajar gu jot fajar gu jot boo rediffusé xam naa boo indee thème bu bees xam naa ma ne ko waaw mu ne ma rajo bi laay teg ci perron bi ci benn fët ci benn euh, tablier ma ne ko waaw mu ne ma yeewaa kër gi yëpp nu ñëw def suñu ñaar rakk ñépp toog waaw nu ne teg ñu yor seeni kay ñu yor seeni big ma ne ko waaw mu ne ma yàlla xam ne ne noonu la ñu toppee waxtaan tomb boo wax ñu noté bu ñu noppee julli suba daa def suñuy commentaire nee na ma bët seen ñu ndékki nee na ma loolu kër gi yépp léegi mooy suñu programme mu ne ma wax nangam nangam wax ma ci wax yooyu nag moom place yu ba pour wax ko waaw waaye daal tabarkàlla <laughs> dafa am solo lool waaw dafa solo lool mooy waxtaan yi nan la ñuy jariñe est-ce que mooy déglu ko rek waaye moom nee na moom du yem ci déglu ko da koy da koy noté euh, monsieur le monsieur le soldat jërëjëf monsieur monsieur le militaire <laughs> waaw du courage et du courage encore waaw <laughs> mbokk yi àq yooyu daf ci am xuquuq mustaraka bayna zawjayni daf ci am àq yoo xam ne jëkkër ji ak jabar ji moomuñu ko du ci àqu kenn bàyyi ka ca des déedéet àqu sëy bi la xam nga sëy leeg léeg da nga gis ñu ne diw dafa bëgg bu bëggee euh, sauver foyam na def nangam maa ngi doon wut benn cabinet yàllaa def amaguma ba léegi ndax lu yaa si tabarkal la dafa dafa xawa kii te bëgguma ko am fu sori am na mbokk moo xam ne mën na maa jëlal ci immeuble Fahd waaye su boobaa day sori fu xaw a jege la bëgg waaw ñoo ngi koy def ca kër gi nag waaw <laughs> di ci liggéeyal di ci liggéeyaaleel soxna Aminata taal ci conseil économique <laughs> soxna Aminata lay ko <laughs> maa ngi lay conseil eh, ñaari way dencante yi maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay wut di leen conseil <laughs> tubarkalla boole leen ci conseil économique social et environnemental <laughs> tubarkalla léeg-léeg ngi si jëkkër ju nite ndeysaan waaw jabar ji ne ko kaañ dem ci oustaz nu waxtaan ak moom rek mun ne ay ca ndeysaan taal oto bi allahu akbar sama yaram day daw waaw léeg-léeg ma waxtaan ñoo ba noppi génn tàngal may leen dangay <laughs> wax suñ bàkki ne ko maa ngi ñaan yàlla mu def moom sëriñ rek la ba ma ñaanal leen waaw yàlla mu yàlla defu sëriñ ma ñaanal leen ñaan ñaana laa la yaayi Maodo waaye lu am solo la parce que léeg-léeg sëy bi dañuy dem ba mu yàgg ku góor ki jaaxle léeg-léeg ñu dem ba mu yàgg ku jigéen ki jaaxle léeg-léeg ñoom ñaar ñëppay jaaxle fi nu toll nii mënuñ koo romb xam nga ci alxudaybiya dañ koy nettali ci tafsir nii waaye lu jar a bàyyi xel la keroog fi yonent bi tolloon digganteem ak saaba yi bu ummu salamata intervenir u toon rek adduna tukki ndax yonent bi digle na saaba yi ne mukk waaw léegi dara munu cee tege xanaa rek fal yaxsar lazine yuxaalifuna an amrihi waaw ummu ummu salamata daal di intervenir cey ba dem surtu yaasin it wa jaa min aqsal madinati député ba intervenir yee gis nga ko le 23 juin ba lay weesu intervention ba ca Cheikh Hadj Abdoul Aziz la jóge tabarkàlla te ma nga tëdd jabar sax kon nag yooyu nga xam ne day xew ci diggante way dencante yi nit ñi nanuy nanuy intervenir tey ñëwee façon bu baax te bañ di parparloo te loolu dana xew ci politiciens yi Hadj Abdul Aziz Al Khalifa li taifa atijaniya dégg ngeen jox ñu mbër ki démb dégg ngeen euh, euh, Jacques Ndiaye su fekkee jumuma Euh, moom tam tabarkàlla te bokk ci jàngu bi intervention bi mu def loolu dafa baax ci mpénc tabarkàlla waaye xam rek xam bu baaxut xam bu baaxut tabarkàlla ala kulli xaal ma dellusiwaat ci ñaari way dencante yi àq yi ñetti xeet la àq yi sëy bi moom àq yi jëkkër moom àq yi jabar moom ma bëgg tàmbali ci àq yi sëy bi moom ab sëy mooy bu ñu tuddee alxayr maanaam ku góor nee na bëgg na ku jigéen na bëgg na am ku ñaan maanaam ku góor ki ñaan walla kam ñaan bàyyi ku jigéen ki maye wala kam mayeloo ñu xutba leen ñoom ñaar wax leen la sóoratu euh, an-nisaa tàmbalee léegi sëy bi taxaw na sëy bi taxaw mu am àq yoo xam ne ñoo ko sëy bee ko moom bokk na ci àq ya ab séet dañ koy léemu bu séet bi ñëwee ci kër gi ba topp yi ñibbi ngeen des seen néeg yéen ñaar dong ah sëy bi ay àqam tàmbali na nga jël sa loxo teg ca bopp siit ba dindi musóor ga bu fekkee ci musóor dong la yam bu dee koy muuru ni ibaadu yi def nga dindi pik bi mu ko tappe làqat <laughs> boo fa fekkee mees nag boo léemoo du baax siit bu meesu ku ko léemu du jàpp maax la ko tey waaw boo tegee sa bopp ci sa loxo ci bopp bi dañ am mees aha taxawal foofa gaaw siit bu meesu ku ko ku ko ku ko ku du jàpp waaw su fekkee nag fekk ko ca mees kawar guñ <laughs> kawar guñ liisal dong nga ca fekk walla guñ guñ maab <laughs> nga teg sa loxo ci kawar ci bopp bi daal ne allahuma inni asaluka min xayriha wa xayri ma jabiltaha alayha wa audu bika min sharriha wa sharri ma jabiltaha alayha yonent bi kenn du yow li tax nga gënal nu sunuy ndey gënal nu sunuy bàyyi te loolu am salla alayka allahu ya alamal huda ci waaw waaw lu ci nekk am na luñ ci jàngal nekk sunu roywaay yoo xam ne lu ñuy dugg lu nekk joxoñ nañu ko mu wax ne boo amee séet loolu ngay wax nga ne yàlla maa ngi lay ñaan sama jabar ji lépp lu ne ci moom ci mbaax maa ngi lay ñaan nga tegal boo ko ci pénc bi ma gis ko samay bokk gis ko waaye maa ngi lay ñaan lépp lu defoo ci moom yàlla na yem ci suñu néeg bii maag moom ndeysaan allahu akbar ndaw ñaan gu nga jóg ne acca kon nag nan bokk jàpp ndax ñu am loolu ndeysaan bokk jàpp waaw raxasu gallax ndiku sarax ndiku fiiru sëlmu ba mu jeex ndeysaan allahu akbar ko acca nu julli ah waaw ñaar rakk ndax li ngeen di bëgg a def nii muy wàllu sëy bu ngeen ko léemuwut leeg-leeg benn waay moo jóge fële rek dëddale leen te du ngeen ci mën dara dëddale wut dallu càmmooñ bind ca kële wut beneen dallu càmmooñ bind ca kële dallu càmmooñ mu yóbbu ko ci max mbaakol wa ca des càlle ak yéen ciy bind rek sëy ba tabarkal ku góor ki bu ñëwee rek nuyu sax boo boo ko ci amee santal yàlla ndekete yoo yàkkal ko suuf dañ koo joob yaa une euh, dafa no <laughs> bëggoon jabaram mu jël ko mu dem mu dem jooblu ko ci ñoom ñoom ñoom Baye Matar waaye waa ji moo jaarul fi yonent bi jaarlu bu jaaroon fii day blende diggante bi kenn du ko mën liggéey incha allah loolu la fi yonent bi doon jëriñ cax wu fi nekk mu tekkil ñu ko waaw maam Cheikh Al moo tax mu ne ko ilaahi jaasiyan xayral xuróoni defe naa noonu la ko waxee waaw wasalliyan yaa ilaahi ñu naa ah, mu ne wajziyan abada ñu ne mu ne anna muhammadan al muxtaar ndeysaan ceetet maam Cheikh Al Hadj Malick kon da ngay léemu séet bi yii ngay wax su ngeen ci noppee ngeen jàpp waaw nii la ñuy def déedéet bu dee séet bu nogay yóbbu wala séet bu ñëw kër nogay ña ngay tëgg ña ngay saaga ña ngay xastante ci ci ci ci place bu dangereux bii ñoom ñu wutale ko ay saaga ki xaste man xawma loolu fu mu jóge ñu tudde ko xaar baat bu nañu wax ko ci ci baat bu baaxul xas ndaw si xas hmm, baax na xas ndaw si xas yaayam bi ngeen bi ngeen bi nga ko ba noppi ngeen jàpp ba noppi tabarakallahu ngeen julli ñaar rakk boo amoon téer bi ñu tudd aadabu sifaaf li nasiridin al moo ko bind radiyallahu taala anhu ca doxalinu yonente ba alayhi salaatu wasalaam ngeen ànd nga jiite ko ci waaw nga jiite ko ngeen julli ñaari rakka mu taxaw ci sa ginnaaw waaw allahu akbar rakka yi boo jàngee fàtte ba noppi loo ca teg baax na loo ca teg rek baax na ñaar rakk bu ngeen noppee ñaar rakk yi bokk na ci li ngeen war a def te sëy bi moom ko mooy ngeen bokk lekk dara ngeen bokk lekk dara laax baax na soow baax na pom baax na walla yeneen waaye daal nangeen ngeen bokk lekk dara li ngeen bokki lekkit del del seex di yàbbi di ko jox muy seex di yàbbi di la jox bul wax cam nag <laughs> del <laughs> jay wàjji la loolu na ñoo koy wax rek <laughs> waaye dangeen a bokk di lekk dara del yàbbi del seex di yàbbi di ko jox muy seex di yàbbi di la jox te bul wax cam waaw bul wax cam loolu lu am solo la lu ama am solo la te day des ci bopp bi tubarkal su ko defee bu ngeen lekkee loola ba noppi su ngeen bëggee waxtaan bala ngeen waxtaan nga laaj ko ndax man ngaa jàpp nga laaj ko siit bi bu fekkee yow mën ngaa jàpp wala siit bi laaj jëkkër ji najaay mbaa mën ngaa ndax man ngaa jàpp waxtaan yi tàmbali communication yi foofu lay tàmbalee waaw ak tooñante bi ndeysaan laajante ndax mën ngaa sangu laa jublu ci ndax mën ngaa jàpp ndax jàppoon nañ sànq su yooyu noppee ba waxtaan jot dinañ ci ñëw nga am léemu gu ñu léemu kon àq sëy bi la ca jiitu mooy bés naka tey ginnaaw may nañ diw diw al muashara day dagan mooy lan waxtaanu lal waxtaanu lal dagan na bànneexu dagan na kullun min az-zawjayni bil axar àq jii àq ju sëy bi moom la jëkkër ji jabar ji dagan ko jabar ji jëkkër ji dagan ko ñoom ñaara ñu xam ne àq ji sëy bee ko moom ak boobu sëy bi moom nag nga xam ne boo demee ci téere yi bu ñuy lim ca la ñuy tàmbalee fu sëy yàqu fii la déparé sëy boo dégg mu naqari am coow ba baa muy tas fii ci àq bii lay déparé mooy àqu waxtaanu lal àqu waxtaanu lal sunu borom daa wax ne ñaari way dencante buñ tëjee seenum néeg bu leen kenn wax lu ñuy def yoonu kenn nekku ku ci Oustaz Ahmed Dame delloo na néeg bi fir nañ seen i rido yoonu kenn nekku ca làmp bi leer lañuy ñuy taal bu leerut la ñuy lëndëm nga ca lañuy nekk loolu yoonu kenn nekku ca annaa situm àq bii su fekkee lañ cay wut ñaar ñëpp am nañ ko ca bu ñu xëyee ndékki lu neex la ñuy ndékkee ma la ko tey ndékki lu neex la ñuy ndékkee àq bi bu fekkee ku góor jox na ko àqam su boobaa jabar toog dana ko yomb muñ dana ko yomb ndax bëri na lu ñuy def jigéen ci sëyam su jotee ci àq bi ni mu ko war a jote mu mën a muñ loola ca sëy ba àq bi nag du luy xew képp waaye ma nga tàmbalee ca uufu uufu jigéen ju bëggee jëkkër ja su sañoon daf koy uuf da koy uuf léeg-léeg muy nelaw mu teg ko ci mbaggum càmmooñ mi mu nelaw fa ndeysaan <laughs> ay wajile waaye fi ne mel ni mbay faati rekk mel ni mbay fàtti rek waaw kenn mësu koo gis sëñ Cheikh nee na waa ji dafa ne daa am barke bay mbay ma nangu rek mooy day birum néeg waaye la ca mujj ku xam na ko tabarkalla <laughs> sëñ Cheikh na ko ëpp naa def mu ne ah kay néeg rek waaye c'est ne benn bis la ñëw ci kër gi rek ne yoggu rek toog fële suñ baabu kër si ne ko waaw diw lu xew rek góor gu ne ko damaa birum néeg <laughs> ndeysaan cay waaji la waaw mu nga ma del siwaat ci àq bi muy almuashara muy àqu waxtaanu néeg bi tey soo seetloo rajo yeeg télé yeeg yëpp fu ñu waxee rek wax lii góor gu tële ci néegu sëyam góor gu tële rekk la nit ñi di waxtaane ndax jigéen ñi ñooy def luñ jot togg kuy def loo jot togg léegi tey nga togg lu jidul lu jigul sa jëkkër waaw bàyyi leen lu ngeen jot togg waaw loolu lu jar a bàyyi xel la ci mbir waaw bas naa dégg seen mbay si Mansour porte parole yàlla na ko yàlla gën a sàmm te jàppale ko ci yenn bi waaw mu jox lu am solo muy li jigéen ñi def luñ jot togg waaw luñ jot rek togg tabarkalla ma ne loolu mbokk yi mooy àq bi sëy bi njëkk a am te bokk ci àq bi mën a tax ñu conserver wala ñu ñu ñu ñu téye sëy bi muy àq boobu tàmbalee ci uufu tàmbalee ci waxtaan ah tàmbalee ci kaf tàmbalee ci tabarkaal la ree la ci néeg ba kenn mënu koo li waaw rekk tabarkaal la ndeysaan boo xëyee ñu defal la ndékki lu neex waaw waaye mel ni mbay faati gënu góor la nag bu ñaaw mbokkum nogay la mu nga fële ca càlle kon àq boobu bi sunu borom di jàngale dafa wax ne eh, nisaaukum xarsun lakum waaw faatu xarsakum anna shi'tum boo laajoon ñoom oustaz ba Aboubacar Seck ci yëmbal waaw boo laajoon ñoom docteur Youssouf Ka waaw ci Sicap Mbao anna baatu anna ak ni mu yaatoog lim làmb lépp biñ la ko firi rek tabarkàlla nga xam ne sunu borom kenn du moom nisaa'ukum harsun lakum ñu ne waaw mu ne faatu harfakum anna shi'tum lam ci teg na mooy moo te ngeen bañ a te ngeen bañ a def pexe mu leen tax am doom waxaddimoo li am fusikum denc leen ci biirub jigéen ja lu leen di wóotu bu ëllëgee ci mission yi nga xam ne ci ngeen nekk waxaddimoo li am fusikum loolu lay tekki mu tax kenn du séq ak sa jabar di wut pexe yooyu tax du am doom day yàq ak wér-gu-yaramam ba noppi day yàq ak jaamu yàllaam ba noppi day yàq àq bii nga xam ne ci la nekk ndax jigéen ju dul gis baax léeg-léeg nopp da koy jafe ndax ci après mbaax ci la ci la likkitu nopp di ñëw après baax waaw mu tax jigéen ñi bu ñu gisee baax ba noppi période yooyu ñu toll ñoom xam nañ ko dañuy dañuy dañuy soxla lool tabarkalla waxtaan wii mbokk yi xam naa mën naa yem foofu junj doy na ko am xel bu ëllëgee incha allah ñëw ci tomb bu ñaaral bi ci àq yooyu nga xam ne sëy bee ko moom jërë ngeen jëf bu leen neexee ci kanam tuuti huit ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bés deux waaw su ko defee nu ànd ci waxtaan wi tàmbali wi te di jeex dix leen di la ak mardi sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen i këyit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncal leen ko ci wolof ñaan yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi waaye ak sponsor bi C3S yàlla yàlla gën koo suqali gën koo yaatal gën koo barkeel ka ko jiiteeg ña fay liggéey yëpp yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci sunuy poos dara ñanaan daloon coxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha mastata'tu